Ousmane Sonko euh, bañ a doon li nga xam ne mooy candidat ci élection yi nga xam ne euh, ca la ñu daal di jëm euh, kebe recours bi nga xam ne Ousmane Sonko dugal na ko dafay permettre aussi ñu amaat beneen tournure wala ñu ubbi waat li nga xam ne moom mooy boobile dossier on peut dire que ne sax dañ koy reprendre je Effectivement, les avocats d'Ousmane Sonko ont quand même signifié leur pourvoi mmh. en euh, cassation à la Cour suprême. Euh, te loolu comme ni nga ko waxee sànq moom Mame Mbaye dafay am diir bu toll ci benn weer quand même euh, pour daal di produire li nga xam ni moom mooy son mémoire en en défense. te gis nga euh, dossier Prodac muy dossier Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang. Mhm. dafa nekk ndeya dossier boo xamante ni fii nii gis nga. procédure en tout cas ni mu demoon yaakaar naa Ousmane Sonko calvaire yi mu dund yëpp yu ci ëpp bari ci diggam ak Mame Mbaye Niang la ko jotee bi ñu koy asperger liquide bi ñuy toj otoom yooyu yëpp je pense que yaakaar naa ni ci euh, diggam ak dossier bi dox ci diggam ak ki nga xam ni moom mooy yaa euh, Mame Mbaye Niang la ko dundee ñu condamné ko mm-hmm. c'est Mame Mbaye Niang même qui a interjeté appel. ñu dem ñu condamné waat Ousmane Sonko parce que la ko njëkk a condamné bi ñu dikkaatee dañ ko condamné waat leneen muy six mois avec sursis boobu nga xam ne wax nga ko ak une amende de euh, deux cent millions ci suñu ay euh, koppar mhm. yoo xam ne Ousmane Sonko war na ko verser euh, kii di Mame Mbaye Niang déggoon ko ko mu ni en tout cas du verser dara ñun dañuy jàppoon ni Euh, procédure boobu bu fekkoon ne dañoo nekk dans un pays normal en tout ñun ci li ñu assisté euh, nekk na loo xam ni li ñu ci salfaañ ay aq ak yelleef ki nga xam ni mhm. moom mooy monsieur Sonko. Euh, c'est tellement énorme d'autant plus que ki nga xam ni moom mooy son avocat di Juan Branco moom dafa doon wax que ni. Mhm. affaire bi dañ ko war a manaam Euh, bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu toppee affaire rek dafa war a nul parce que ki nga xam ne moom moo war a porter moom moo porter plainte à la place de ki nga xam ne moom Mame Mbaye Niang xoolee gagné na procès bu mel noonu récemment fële ca France contre ki nga xam ne moom mooy Emmanuel Macron parce que kii dugal plainte bi euh, maanaam xam nga droit nag dafa xaw a complexe euh, dans les normes waru ko dugal moo tax loolu dafay tax euh, ñu ni euh, en tout cas procès bi dañu koy dafa nul lañu ko war a dañ ko war a annulé lu maanaam lu mel noonu la doon euh, defendre ci procès ki nga xam ne mooy diggante Ousmane ko Mame Mbaye Niang moom jotul sax maanaam comme ñu ni ñuy duggee ci fond naan wala détourné na moom dafa ni rek bu ñu toppee affaire dëgg dëgg dëgg affaire dañu ko war a nulal parce que respecté wuñu la xam ne mooy procédure kon déjà loolu rek problème la en tout cas ci forme bi que ni Ousmane Sonko te malgré tout ça condamné nañu ko ci ba euh, daan ko ñu defaat appel ñu condamné waat ko daan ko tey ñu ni dañuy war a dem fi nga xam ni moom mooy euh, cour suprême mhm. pour nag xool ndax la condamnation sera définitive wala parce que foofu kenn du fa àttewaat dañuy xool ndax merci beaucoup voilà euh, léegi Ousmane sonkoo kon fi mu ne nii sànni tàcc googu noonu moom moo ko des en tout cas ci digg ma ki nga xam ne moom mooy Mame Mbaye Niang ci procès boo xam ni ndeyaa mhm. Ousmane Sonko dafa ni woon xam nga dëgg neex yàlla man day bu nu sàccee sama alal. Mhm. nga ñëw ni ma diw mii dafa sàcc. man de dama laa war a neex dama moom bu ma bu ma laajee sama po xam na lu ma fu njëkk a daj moom su ma làmbee nii génnee junni wala ñaari junni. Mhm. bu xam naa ni yaa moom dama lay ba noppi. daal di lay wax nag ñi la kaan dem nga won ma sàcc bi ak nan nga def ba jàpp ko ak foo ko jàppee en fait. ñun loolu lañ doon xaar en tout cas ci état du Sénégal. mu def noonu mais malheureusement tey Mame Mbaye Niang bi ñu ne man da bu fekkoon ne dañu nekk ci yoon bu normal. maam avant ñu doon topp Ousmane Sonko pour diffamation dañuy topp Mame Mbaye Niang ba xam li ko Ousmane Sonko wax dëgg la wala du dëgg. voilà loolu mooy léegi nag su promé bu amul léegi nag mën nañu tourner topp Ousmane Sonko pour diffamation mais sàcc ngi nii sàcc na dafa sàcc nanga mi milliard. ñu ni sàcc ko léegi dañu lay porter plainte pour diffamation ñu yóbbu la ñu àtte la ci loolu déjà loolu rek kenn mënu ko kenn mënu ko euh, comprendre moo tax tey euh, bu ñenn ñi toogee naan dañu kon kon naan nañu Ousmane Sonko euh, ci dossier bi doxoon ci diggam ak Mame Mbaye Niang loolu tere na ko mu nekk candidat alors que la condamnation ba tey ji n'est encore voilà mais xam nga xam nga boo déggee ñu bëri ñuy wax loolu mooy que gis nañ justice bi ni muy doxee position bi nga xam ne parfois daf koy bien vrai que ne am na ci ñoo xam ne euh, dafay xaw a yoolam ci ñoom am na ci ñoo xam ne dafay dëggat ci ñoom loolu moo war a à chaque fois nit ñi posé xam nga justice bi problème boobu boo xoolee ñun boo xoolee assemblée nationale kër yi ba ñu dañ ko fay jëlee mhm. ba bëgg a indi li nga xamante ni si ni moom mooy euh, pôle judiciaire financier bi nga xam ne moo ko fi bëgg a wuutu mais kër yi boobu noonu Mhm. mais procureur ba nga xam ni moo fa daan nekk mais tey ministre de la justice mooy kilifaam. te lii nii ba tey changé wuñ démarche bi lii nii bu dikkee itam ka fi nekk ministre de la justice mooy kilifaam. moom mooy kilifaam ministre de la justice kan mooy kilifaam du président Macky Sall. effectivement alors kon ba tey indépendance mënul am foofu noonu cest à diir ñoom daal maanaam wiiri wiiri jaari ndaale rek. dañu euh, tourner tourner tourner rek dikkaat fa ñu nekkoon en fait maanaam. tour yi la ñu changé rek mais doxalin. doxalin bi benn formalité yëpp boo demaatee da nga fa fekk. kon loolu pour man dañu ko indi rek xëy na pour naxee ko euh, sénégal yi. Mhm. mais boo xoolee tey ku ne xam ne ku ne xam na ni la euh, justice sénégalaise pour le mhm. moment. Euh, feebar na feebar boo xamante ni si nii bu fekkoon tey amoon na indépendante lu mu néew néew néew mhm. néew procès Ousmane Sonko nii fi mu àgg xam nga boo xoolee tey Clédor seen Euh, instant bi ñu bari nag ñu ngi koy laajte gëj nañ koo gis mais moom euh, bi euh, procès bi mujjee nga xam ni moom moom mujjee am en tout cas. moom ci ci les témoins clés la bokkoon yore un dossier explosif boo xamante ni si ni tey daf ko bëggoon a. voilà keroog jours yi mais gis nga mayuñu ko en tout cas fu mu yéegee. moo ki nga xam ni moom mooy Birame Seck. bi nga xam ni en tout cas daf ci bind un livre. moo tax tey vraiment. man lii li ma ci gis rek mooy avocat Ousmane Sonko yi vraiment. Euh, ay mhm. légaliste lañ en fait. ok parce que déjà yow boo xoolee procédure sa client procédure yi lépp yow lu ci ëpp bari respecté wuñ ko dañu salfaañe mais boo xoolee maître Ciré door Ly nga xam ni tey jii kàngam la ci wàllu googu noonu mhm. euh, am ci expérience bu baree baree bari tey bokk ci pôle avocat wu Ousmane Sonko yi euh, taxaw euh, di jël défense am vraiment tey bu génnee bay wax yenn yi ak nga gis ko muy jël yenn position yi ça veut dire que mais problème am moo tax tey vraiment président Macky Sall ñun suñu justice bi Euh, sous le régime du président Macky Sall. Euh, ñëpp dañu xam ni la justice est quand même à terre moom dafa tëdd ba nërmeelu desetul dara dara ci kaw dafa ni nërëm dafa jébbalu carrément en fait moo tax euh, tey justice bu mel noonu bu ñu ci bëggee condamné un opposant bu mel ni Ousmane Sonko te teguñu ko ci firnde yu leer nañ tout le temps dafay indi problème moo tax vraiment c'est à saluer décision bi nga xam ni tey avocat Ousmane Sonko jël nañ ko. effectivement euh, mais dafa am loo xam ni euh, Kébé peut-être nit ñi dañ koy fàttaliku wala am na si ñenn yoo xam ne sax ñu ngi koy euh, fàttali Ousmane Sonko parce que dafa am lenn loo xam ne waxoon na ko vrai que ne avocat am mais tamit Ousmane Sonko ci lay doon na parce que dafa am lenn loo xam waxoon na mhm. moom dootul am maanaam dootul laale dara ak li nga xam moom mooy la justice. waaw xam nga tey Ousmane Sonko nag. Mhm. am na fu muy toll foo xam ni du moom boppam. xam nga tey moom si un homme ay avocat am xam nga nag nit maanaam dooni mat naa lig faa mu dagg maanaam nit doomu aadama balaa mooy baax il faut nga am ñoo xam ne bu ñu la ñaanee nga leen di may tey mu wax loolu tekkiwul ni daf ci war a dem jusqu'au bout ba ay ah, avocat am yi nga xam ne dañ ko war a défendre itam bu ñu taxawee ni ko ah yoon bii nga jël baaxul bii moo baax mais dans ce cas euh, loo bëgg mu def est-ce que jaroon na wax euh, xam nga. justice réew justice moo ko yor kon boo taxawee ba ne euh, dootuma laale ak ñoom suñ ma woowee du ma dem suñ ma liiwee du ma dem kon ñu bëri ñu ngi doon xaar euh, Ousmane. Sonko foofu tamit foofu tamit foofu tamit jar bi ma gis mi ngi doxale nii. Mhm. man bu ma woowee dootuma wuy ji. c'est-à-dire fii ak ñi ngi salfaañ ay àq ay ay di bafee ay droit am muy wuy ji ñu koy sànni ay grenade lacrymogène mhm. di toj ay otom mais dans ces conditions tey un opposant tey mais mu ci wuy yi mais c'est un risque boo xoolee la fois passée même bu mu nekk bi mu nekk Ziguinchor dafa ñu leen mhm. mën na maa wuy si mais à des conditions ngeen garantiral ma sama sécurité te bañ ma tànnal yoon ban laay jaar xam nga tey euh, sa noon Euh, bu lay bu bu bu lay de mais du la jaarloo fu baax en fait tey loolu te loolu c'est c'est c'est ce sont ses droits les plus absolus à ce que mu demande ko en fait euh, même le juge ci boppam sax moom moo waroon a créer les conditions favorables à ce que Ousmane Sonko a ñëw wuy si ci jàmm ak salaam mais nag bu fekkente ni yooyu yëpp tey respecté wuñu ko en tout cas mm. te ay avocat même mu ñu koy ñaan loolu à mu dem wuy ji wala mu ñëw fekk si justice parce que na ay avocat mais ay homme de ñoom dañu fi nekk pour yoon kon ñoom du ñu encourager lenn loo xam ni en tout cas dafay défier yoon mais nag des fois dañuy dem ba euh, benn mois boo xamante ni xëy na du ñu am euh, soit peut mais même ñoom sax bu ñuy demander Ousmane Sonko loolu ñu dem euh, fexe garanti Ousmane Sonko à ce que mais li ko daan arrivé euh, les fois passées dootu ko dootu ko dootu ko dootu ko arrivé te en fait ci le fait que muy dem di wuy ji te lool ku ne xam na ni c'est anormal euh, Ousmane ko dem di wuy ji ñu lay asperger ay liquide yoo xamante ne si ni euh, nit yi demoon nañu ba ba ba ba ba en tout cas ay militants demoon nañu ba tiit ci ñuy toj sa sa oto nga toog nii nii affaire yi di tasaaroo ci sa kaw ci booba jamono lu ne mënoon na xew en tout bu fekkee fekkoon ne affaire tasaara woon na ci sa kanam. maanaam risque yooyu yëpp tey nga ko doon jëli ci wuy yaakaar naa que ni même. parce que ay euh, risque la woon aussi. lu ñu nekk ay légaliste légaliste mais pour être légaliste ma gis nga maanaam. Euh, jàmm ñaare ko si en fait tey bu kii ma bëggee respecté yoon kii du respecté yoon itam loolu problème dafay am moo tax yoon ñu bëggee yoon eh, jub ko ci il faut que ñaari côté yëpp respecté yoon Ousmane Sonko su respecté yoon te côté bii itam respecté ñu yoon mais affaire du man a sotti Ousmane Sonko boo xoolee la bu daan wuy si mais nit ki boo ko wooyee mu lay wuy si kay wax dëgg yàlla te bëgg nga mu wuy si la ci jàmm ak salaam. mais jërul créer yenn conditions ak yenn incidents yi mais à chaque fois man dama doon euh, noté que ni vraiment ñii woo nañ ko muy bëgguñu mu wii si en fait. parce que Ousmane Sonko man dama yàgg a gëm ni euh, bu ñu ko bàyyee mu wuy si ak sagoom. Mm. ànd ak ay témoins ñëw ci tribunal bi affaire yi jaar. Euh, lépp lépp lépp lépp normal. non ñoom bëgg na Ousmane Sonko dem mais mbooloo gi nekk ci ginnaaw te mbooloo bi ku ne xam ne ne ñoom ñoo ñëw ak seen bopp ñoo ñëwal. seen bopp même même mbooloo parce que tey. Euh, Ousmane Sonko man dama gëm ni euh, maanaam même su wuyisee même à part mbooloo bi itam sax man dama gëm ni ñoom mu wuyisi tranquillement rek indi ay preuve am ak i témoin am dugg ci salle bi ñu ñu de normal affaire lépp jaar yoon mais xoolal procès Mame Mbaye Niang euh, ak Ousmane Sonko muy Prodac uh-huh. bi nga xamante ne si ni ku ci mel ne Birahim Seck def ci bind un livre mais Clédor Clédor Sène mais ñëw na fii ni dossier bi nga xam ne yore na ko ci man mii yore naa dossier bi mais dossier boobu noonu tey bu ñu taxawoon <clears throat> ñu toj ko faram-fàcce ko devant tout tout le monde. Mm-hmm. Euh, monde international ak national bi yëpp taxaw. ñu xam ni mbir mi parce que affaire yi maanaam gis nga bu ñu demoon ba ba ba dugg ci yax yi dëgg dëgg dëgg. Mm-hmm. li naan yuuxu dana am na ñu bëree bëri ñoo xam ne ba tey Sénégal yi xëy na am na ñoo xam ne dégg kuñ ci seen tur. bis bu ñu demoon ba toj affaire yi dëgg dëgg nit ñi maanaam Mame Mbaye Niang bi maanaam moo ci gën a fës moo ci gën a siiwee mais am na ñeneen ñoo xamante ne si ni kon tey. mais ñoom est-ce que bëgg nañu au mbir mi leer parce que mbir mi mu leer moom laa lay expliqué moo tax ma ni la ñoom léegi Ousmane Sonko ñëwoon tranquillement ak i mhm. dikk plaide jaar ci yoon mais arrangé wu leen parce que mënuma concevoir teew ay nga ne leen doo leen dugg que saag dafa fees ak moo tax moo tax ma ni la tey moo tax ma ni la woon sànq woon nañu ko mais bëgguñu mu mu ñëw mu ñëw mu mu wuy si en fait c'est c'était ça moo tax woon boo xoolee euh, yooyu ñu doon créé yépp du militant Ousmane Sonko du kenn tey gis nañu ñi nga xam ni ñoom ñoo taxawoon doon ko créé conditions yooyu noonu kon tey dama gëm ni euh, Ousmane Sonko euh, vraiment en tout cas li mu warlu ak yoon lu ci ëpp bari dañuy constater dañuy gis que ni mi ngi koy mi ngi koy mi ngi koy def. Mm-hmm. mais à chaque fois ñi nga xam ni ñoom la ñu jàkk ñi nga ñi mu jàkkaarlool ñi nga xam ni ils son quand même euh, peut-être censés euh, pas sax peut-être ils sont censés quand même euh, respecter la loi parce que ñoom ñooy incarner pour le moment euh, les lois et les règlements. ñoom la plupart ñoom ñooy ja jalgati ñoom ñooy jàdd yoon. Mm-hmm. moo tax cette fois si li nga xam ni puisque dem nañu Cour suprême te gis nañu boo xoolee Sénégalais bu ñu arrêté tuuti ci ginnaaw ba ñuy wax. Euh, ba ñuy wax chamboulement dans la magistrature euh, classement yi nga xam ne président Macky Sall defoon na ko mais Ousmane Sonko fu mu dem bu gis nga fu mu fu mu jógee ak fi mu dal ci cour d'appel mhm. ci ci ci Amady Diouf cour euh, de cassation bu fa demaatee fekk fa Siré Ali Ba bi nga xam ne élection législative yi nous man mii j'étais euh, euh, fële euh, au tribunal. voilà doon taataan résultat yi nga xamante ni si ni tey waa Pastef waa Yewwi Askan dañu ne woon résultat yi ñoom. ànduñu ci te dañu war a. Euh, cayituwaat affaire yi parce que am na ci bare bare yoo xam ni fraude dafa am mais gis nga dafa dem euh, daal di daal di daal di daal di résultats ñu maintenir ko ba gis nga tey li nga xam ni moom moo xew assemblée nationale tey Siré Ali Ba boobu noonu la war a fekki waat fële nga xamante ni si ni moom mooy cour de cassation kon tey euh, Ousmane Sonko fépp maanaam même su fekkente ni mi ngi ay avocat am ñi ngi fexe topp yoon mais fépp fu mu dem mais dana fekk koo xamante ni sii nii tey ñoom boo. boo parce que Amadou Diouf la fekkoon cour d'appel. effectivement Abdou Karim Diop euh, bi nga xam ni moom moo nekkoon moo nekk ak l'actuel procureur bi fa Amadou Diouf jógee maam Amadou Diouf dafa jógee fii Abdou Karim Diop ñëw Amadou Diouf dem maam daf ko bàyyi fii dem kari ko feneen <laughs> on bu fa pare mu war a fekk ji si Ali ba c'est-à-dire kon tey euh, président Macky Sall maanaam léppam ay calcul la en fait léppam mhm. daf koo calculer ba mu mat léegi nag ndax cour de cassation boobu noonu en tout cas man day jusqu'à preuve du bu dee ni Siré Ali bii nii ñu xam moom moo fa wéy di nekk. ah peut-être euh, justice bi mën na man na euh, tranché loo xam ne justice ay nit ñoo koy incarné en fait. c'est vrai. voilà mooy loolu mooy loolu mooy jafe-jafe bi loolu mooy problème bi moo tax ma ni ñun euh, dañu amee problème bu mag a mag a mag a mag te beneen régime régime bu fi ñëw billaay li nga war a dimbalee Sénégalais li ñu war a xeex jamono ji seen combat yépp mooy. xeex ba am une justice indépendante mm-hmm. fii amuñu ko ci ay jafe-jafe kese bu feek maanaam suñu président yi ñi ngi am euh, di man a teg seen loxo ci suñu justice bi ñun du ñu jóg ci ay jafe-jafe du ñu jóg ci ay problème parce que mm-hmm. justice boo xam ne dañ koy manipuler loolu musiba la catastrophe la ci réew te moom moo ñu indil tey jafe-jafe yi nga xamante ni si ni tey jamono jii ni Sénégal jafe-jafe yëpp ñi ngi koy ñi ngi koy dund moo tax tey fii ñu ak fii yëpp mais xoolal Benjamin Mendy xam ni euh, sept filles xam nga dañu ko jiyoon ji ñooñu dëgg la ñu dem ni ba gis ni prouvé que ni vraiment kii liñ ko doon jiñ dara amu ci instant bi ma ngay reprendre li nga xam ni moom mooy activité am. di football te am na lu bëri loo xam ne ñàkk na ko. d' accord mais reprendre na carrière am. sun Sonko tey ñu Adji Sarr daf ko jiñ viol ñu dem ba prouvé que ni lii ni dara du ci dëgg mais ñu indi corruption de la jeunesse. voilà parce que voilà ñu doon demandé xanaa